nemmeeku naa daanaka ba sonn kenn dégguma tribune yéen a ne waaye li mënul woon ñàkk am na suñuy ndaw de desati nañ ci géej gi yéen a kaay dee média bi naan man fan yee yëpp maa ngi alerte ci téeméer ak juróom fukk ndaw yoo xam ne ñi ngi bàyyeekoo Fass Boy Mboro ak yeneen gox goxaan yoo xam ne ñoo ko daal di wër duggoon cib gaal goo xam ne dafa màngaani woon yéen kaay bi média bi naan man wax naa alerte naa seeni mbokk it wax nañu waaye France daal di xidéem kenn gisu leen woon tribune naan man feeñ nañu de waaye ca téeméer ak juróom fukk xale ya fanweer ak ñett daal ñoo ca daal di di feeñ te juróom ñaar ya nag ña nga daal di wopp ba daal di laatikaaf fi mu toll nii ñu ngi leen war a hospitaliser yéen i bi dee média bi naan maan juróom benn fukk ak ñett ñoo xam ne daal dinañuy faatu ca gaal googee daal dinañ leen ciy seetlu fas booy daal di nekk ci naqar jamono ji joo xam ni maar day taal yi yéen i kaay bi bi naan maan am na ci ñoo xam ne man de la faatu woon nañ te fekk nañ leen ci biir gaal gi seen i néew le témoin yéen i kaay naan maan daanaka juróom benn fukk lañu ñoo xam ne nag daal dinañuy réer ca géej ga gaal gi nag fukki fan ci weer suliet gi la bàyyee bàyyeekoo woon Fass booy ba tey France daal di xidéem kenn gisu ko woon vox populi naan man ñaawteef amatina suñuy doom desati nañ ci géej gi fanweer ak juróom ñett dong ñoo des ci gaal goo xam ne nee ñu téeméer ak juróom fukk la defoon daal di bàyyeekoo Fass booy baabu seen consul général bu Sénégal ca dax la naan fi mu ne de xale yi ni ñu jëlee Barça geeg Barzak gi doy na waar anam wi ñuy teere ak wan yi faatoo yi doy na waar moom Younoussa Baldé dégg ko micro moom baabu seen baabu naan dooree ko benn fan ci weeru avril 2023 bi lu toll ci junni juróom téeméer ñeent fukk ko juróom-ñett ci doomu réewum Sénégal yoo xam ne dañoo façon yéen a yegg ca Barça dañoo teer ci la ci Maroc te marin bi nga xam ne moo nekk fii ci Maroc moo leen daal di xettali lu toll ci junni ñaari téeméer ak ñeent fukk ñibbisi nañ ci réew mi ñetti téeméer ñaar fukk ak ñetti fi mu ne ñi ngi xaar ñu delloo leen Sénégal juróom-ñeent ci ay néew ñi ngi dax la kenn ki moom daanaka foofee lañ koy daal di denc ndax mënatul ñëw ci juróom-ñeent yooyee baabu naan juróomi ña nga bàyyeekoo woon ci gaal gi nga xam ne mbuur la jóge woon ñeent ñi nag moom ci l'hôpital la ñu nekkoon laati ba faatu tribune yéen a kaay naan kon waxuñu ci waaye sunu doom yi daanaka ñi ngi jeex ci waax yi ci anam woo xam ne métti na libération yéen a kaay ne ko waaye anam wi nga xam ne ñi ngi koy jàppee askan wi it métti na aji ndaw bu Pastef yóbbu nañ ko mandat de dépôt biram xaloo ba nekk contrôle judiciaire Amadou Tom Mbodj jege ñaale Guy Marius Sagna jàpp nañ ko ca Ziguinchor gannaaw Nafi Dieng Chamsidine Sané GIGN teg na ko loxo yéeni kaay bi naan maan Bassirou Diomaye Faye ak Pape Abdoulaye Touré ni ki àllarba ji daañu xam fu ñuy mujjee Tribune yéeni kaay naan maan Oustaz Assane Seck ak Cheikh Bara Ndiaye seeni dossier faaw ñu wax ci ndax ñoom ñaar dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ doon leeral askan wi ngir li ci ñoom daal ñu daal ci ubbi gët wala it dafa nekk ñoo xam ne dañ doon jaxase di def ay trouble di jaxase xelu askan week doomu aadama yi wala boog dañu doon yee nit ñi di leen jaarloo ci yoon wu baax yi di leen moytuloo xaaxaam yeeg dëkk yi ndax dëgg-dëgg turbine yéen kaay naan maan jàpp gi mitti na ca doy na waar leen fa yéen kaay naan maan bu Ousmane Sonko moom gaa yaa ngi cay alerté nee ñu Ousmane Sonko mi ngi fem ne ci guddi gu bër sa tagul maître Ciré Clédor Ly awokaam naan Ousmane Sonko day na ma ko bàyyee ni ki barki démb fukki fan ak ñeent ci weer ut ma ne la buñ ko jagat-jagatee nii yóbbuwaat ca kasoog si bi kotaan bi dana métti ci gouvernement bu Sénégal wala ndax Ousmane Sonko nag mi ngi feebar ba daal di lompooñ te gis nga yóbbu yóbbu ko moom moo di ñàkk taxaw nit koo xam ne mi ngi wopp wopp goo xam ni maar day taali Seydi Gassama naan xibaar yu jot ci Ousmane Sonko ak ñëpp ñoo xam ne fi mu ne ñu ngi ci kiifal day neexul te gis nga lépp loo xam ni xosi na leen gouvernement gu Sénégal moo cay responsable Alioune Tine naan nañu libéré Ousmane Sonko libéré détenu politique yi laataa lambaay di ñaaw maître Khoureychi Bane jàmbaar dëgg-dëgg mooy Ousmane Sonko metti na mi ngi ci xiifal de waaye Sonko daal loo ci mënti waxit ay tontom mi ngi taxaw Aminata Touré naan kon Ousmane Sonko boo amul doole ndax mën ngaa xeex 24 heures yéen kaay naan maan en tout cas fi mu ne xiifal gi daal dinay tiital ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Ousmane Sonko Walf Quotidien naan maan fi mu ne président Macky Sall moo tiit nag ci kan nag la Sall di tabb ngir mu daal di koy wuutu ci boppuk réew mi l'observateur naan maan wërub candidat gi doy na ci xëj jara président Macky Sall tribune yéen kaay naan kon ñooñu Sonko ak Sonko ci xiifal critique yéen kaay naan président Macky Sall nopp tëx bi la mayee fi mu ne Walf naan maan moo yey de ndax fi ne daal Sall ku mu mënti tabbit mënta wax ba ay jafe jafe-jafe am ci Benno Bokk Yaakaar le point yéene kaay naan man benn candidat Benno Bokk Yaakaar a ngi nii Moustapha Diop lay wuyoo ministre maire nekk kàngam nekk économiste de formation daanaka kàngam yi gën a rëy ci réew mi Moustapha Diop bokk ci moom doomu Louga ji le point yéene kaay naan man doon koo xam ne jàppale na bu baax a baax soxna yi ngir ñu daal di taxawal ay entreprise yéene kaay bi naan man di maire bu Louga yi bokk ci ñi nga xam ne defar nañ Louga Walf Quotidien naan man mu metti ba ngeen fàtte ni président Macky Sall mi ngi ci guddi gu bër setagul lépp nag wutum candidat mandat moo ko waral booba la mandat yéen kaay naan man ay ñoñam dey ña ngay xool yoon wi gën wu ñu mën a jaaree ngir gën a sampaat président Macky Sall yéen bi naan man Abdoulaye Diagne député ma nga ca taxawu askanam ca njóg gannaaw defarug jumaa yaak taxawu ASC ya waaye tam joxe ay ambulance ak i machine wal Abdoulaye naan président Macky Sall maa la toogal njóob lépp loo xam ne bëgg-bëgg askan wi la mu daal di ciy taxaw turbine naan kon ak lu mën a am ak lu mu metti metti bu leen fàtte ni Ousmane Sonko day fi mu ne mi ngi ci guddi gu bër setagul 24 heures yéen kaay naan man naan diggante Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall dees na ci wax ndax diggante Aba Mbaye ak Ngouda Mboup mi nga xam ne Aba nee na weeru yàlla sàkk benn million ak xaaj dana ko jot ci groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi ba plainte am ca yéene kaay bi naan maan lépp a ngi doxee nag ci ñaawoo nga xam ne am na diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall source a naan maan ma ni la coow la dana gën a métti ndax septembre bii ci la ñu war a yeesalaat groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi te fas nañu yéene ñoom député Yewwi dàq waa taxaw su boobaa nag waa taxaw dañuy jagat jagatee seen fukk ak ñetti député daal di taxawal ñoom it seen groupe parlementaire bu boobaa nag assemblée nationale nar naa métti ci l'opposition bi yéene kaay bi naan maan mbir mi ma mu tasee fa yàgg ndax Ousmane Sonko laata muy dugg kaso moo daal di génnee Barthélémy Dias ci groupe WhatsApp ba rax ci dolli visioconférence yéen doon def Barthélémy Dias bokkatu ca Vox Populi naan maan fi ne day diggante taxaw ak mi ngi ñaaw ci plainte nguudam buub bi nag ngeen di xamee ni mi ngi ñaaw l'exclusive yéene kaay naan maan booba Ecotra daal dina jël ay service am daal di toxal ca Touba yéene xamal ne société bu Abdoulaye Sylla lépp lu mu am ci wotoog matériel niki noonu it personnel ba daal dina koy jébbal Touba ngir ñu waajal màggal gi turbine yéen kaay naan man réew mi bu ndëggul liggéey jàmbur dina ma jaaxal lool yéen kaay bi di ma xamal ne xale bu góor sëriñ Fallou Ndiaye juróomi at la am daana ko ñu jàpp ko yóbbu seen kaw terrasse jamat ci fàmb yi ba doyal daal di tër xale bi daal di rend ci anam woo xam ne ñaaw na lool yéen kaay bi naan man ki faat sëriñ Fallou Ndiaye mi ko xam ndax na mu def ba ubbi appartement bi ba yéeg ca ba jaaxal na askan wi na mu def ba jagat jagatee sëriñ Fallou Ndiaye mii fekk fa muy nelawee yéegal ca kaw terrasse ba faatit laaj la yéene kaay bi naan man tàntam di soxnay waajuram bu góor lañ ci téye l'enquête bi nag ña ngi koy daal di wéyal l'observateur naan man réewum Sénégal ci boppam ku tiitulit ci jot na xale bu jigéen bii mama kundul la tuddu dafa ëmb ba am juróom-ñeenti weer mama kundul altineeg tey kenn gisu ko ay njabootam nag njortu ne mama mii boo moytul dañ ko kidnappé te lépp ngi am ci réewum Sénégal ak lu mën a mbokk yi abonné yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim